acca jërë ngeen jëf mbokku internet suñu gal 24 mbégteeg bànneex la daal di doon saa su topp ngeen topp waaye rawatina ànd bi ngeen ànd ñu suñu plateforme bu yanj bi nga xamante ne nag moom mooy suñu gal 24 mbégte la nag ak bànneex saa su ne ñuy jënd ak suñu internet yéen ñi nga xamante ne da ngeen ñuy faral di ñu bu baax a baax a baax di jaajëfal bu baax a baax xamante ni moom la ñu dafay faral di dalal ay ndaanaan waaye tamit dafay faral di dalal ay kilifa ñi nga xamante nag dañuy faral di yëngu ci wàllub aar moo xam waykat nga moo xam influenceuse nga moo xam influenceur nga dinañ la daal di dalal fii ci suñu plateau fas yéene seq ak yow waxtaan tey nag ñu dalal koo xamante ni ku ngeen ràññee ci plateforme yi waaye ku ngeen ràññee la ci ay jamono yu woy wax dëgg fa mu doon koo xamante ku suñu borom dimbali woon la ci wàllu voix waaye ku suñu borom dimbali woon la fii nga xamante ni moom mooy Sénégal ak bitim réew sax laay wax ci li nga xamante ni moom mooy woy ñu gën ko xam ñun sax ñun sax mën nañu wax na wax dëgg fa yàlla jamono ji mi way amaana ay tout tànk la woon ñu doon dégg ay woye mu ñuy neex ah, vraiment ñu gisoon mag ñi di ko bëgg di ko partagé ah, wax dëgg fa yàlla mu doon mag moo xamante ni daal suñu borom dimbale woon la ci wàllum aar ñu gën ko xam ci Secka Secka na dama koy bàyyi mu nekk internet Sunugal 24 yi. waaw salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum àdduna maa ngi nuyu internet yu Sunugal 24 yëpp. Hmm. di wax ni ñu ngi am mbégte ak bànneex ci. ñëw bokk ak yéen plateau bi. ñu wax daal képp kuy internet vingt 24. tey ñun ak yéen incha allah. Mm. macha allah ayca mi ngi noonu tey moom la ñu dalal suñu plateau fas yéene si mu waxtaan tey nag dañuy waxtaanee aar démb ak tey. Euh, ni ko doon ñoom ni ñu ko doon dundee ak tey ni ko gars yi di dundee mais nuyu nuyu maam Sall maa ngi lay siyaar waaw di jë bi maa ngi lay bëggee bàyyi nga am jàmm di am contentement bu baax a baax ay ca mi ngi noonu dox waaw di la jaajëfal di jaajëfal yéen ñi nga xam ne yéen ay safo di ñu seetaan saa su ne waaye di jaajëfal tamit suñu père suñu lépp mhm. ñu gën ko xam ci Secka lëmbal naar mhm. am contentement ak mbégte bu mag a mag jàkkaarloog moom suñu biir plateau mhm. tey euh, euh, defe naa ni ñëpp yaa xam ci war nañ koo gis macha allah waaye nag gannaaw bañ ko gisee tey dinañ waxtaanee lu bëree bëri dinañ waxtaanee ci vie professionnelle am li nga xam ni ci la nekk di yëngu. Mm-hmm. ak euh, dinañ waxtaanee euh, clip bi nga xam ni macha allah def na ko. Mm-hmm. te mi ngi lëmbee àdduna clip bi nga xam ni nee naa la euh, gars yëpp a koy suivre. Mm-hmm. yooyu yëpp dinañ ko développé tey fii suñu biir plateau di jëm. ayca comme ni nga ko daal di waxee rek c'est que naar. waaw lëmbal jamonoy naar moom per la woon. <laughs> jamonoy lëmbal naar est-ce que kii <laughs> ah, ah, <laughs> ah? dama koy dégg lëmbal lëmbal lëmbal. 17 97 la ci xale la. 97 naar 2004 la. waaw la. Ah, lu mën ko xam naa sept ans la ay sept ans lay am doon na ma dal waaw dégg bari na xale yoo xam ne ci lañ jàng dox ah fekk ah. ci lëmbal naar jàng dox ci lañ jàng dox waay lëmbal lëmbal lëmbal naar ni ñu ko doon feccee teg sa ñaari ma waaw <laughs> bari na ñoo xam ne ci lañ jàng doxaan. Ah. ndeysaan est-ce que bokk ci moom bi. dama ni la déet bi <laughs> wax lu yàgg lëmbal naa son boobu day seet. dafa lëmbi àdduna. <laughs> mais daa mel ni son euh, euh, bokk na ci li nga xam ne moo la taal. waaw. lëmbalu naar. d'ailleurs moo tax sax tour bi topp ma boo waxee Secka. waaw lëmbalu naar morceau la hmm. boo xam ne vraiment bi album bi bokk sax lëmbal naar waru ci woon bokk. waaw hmm. hmm. ah. waaw man enregistré naa ba war a mixé. producteur bi ma produire moment boobu maestro musique Secka bu Crayon. moo produire woon benn bis la ñëw rek fekk ñuy foo ak may foo ak suma percussionniste yi ñu koy joué. mu ne ma lii dugal ngeen ko ma ne ko non lii boo ko lii lu ñuy fooyee la rek mu ne ma lii laa bëgg na ñu def ko nekkee morceau boobu moo war a jaay album bi mm. macha te bokkul woon sax ci album bi programme yi programme yàlla def ñu enregistré ko nag gis nga tur bi sax topp Mhm. voilà macha allah ayca ba ñu koy déppee li nga xamante moom mooy Sicap Le Meunar euh, père dañu bi parce que nag euh, wax dëgg fa la ay jamono gëjoon nañu gis jamono ji ñu gisaat la mhm. nga bokkaat xamante ne kenn génn wala ci la gëjoon a gis ñu gis mhm. bi na tournage yi na euh, clip boobu noonu ci bu lal album la bokk wala na ko a gis lay bokk incha allah ci album lay bon gëj a gis gi nag tamit mooy jàmbaar dawul. dafa mhm. wuti doole. Mhm. Euh, dama tukki woon maa ngi woon États-Unis mhm. dem naa fa ñëwaat demaat ñëwaat ay trois fois yooyu mais yu ci nekk nag daa am ay business yu ma doon lijjanti. te xam nga ñun amuñu beneen occupation bu dul aar donte que léeg-léeg ñu jóge fi dem bitim réew euh, dem bitim réew Europe wala États-Unis mais teewul ba tey ñu ngi ci li ñu nit ñi xamee muy aar. waaw léegi nag bi yàlla defee loolu. bi ñëwaatee nag nit ku ne booy def dara ba am ci ay soppe. soppe moom amoo fayam. loolu dul di ko bégal ci li nga xam ne moom moo tax mu sopp la. Hmm. looloo waral tax nag bi ñu ñëwee nag ñu ngi fas yéenee génn benn album. Hmm. album boobu Salminima bii ci la bokk. ci la boo incha allah macha allah mais mais mais mais xeetu xeetu xeetu xeetu parole yi xeetu kii yi euh, loolu yaakaar naa moom jamono jii gën ko gis ci ci ci art. Mm. mooy yi nga xamante ne mu ngi ko bind. ni mu amee tem ni son bi amee dégg. Mm. ah yooyu yooyu yooyu yooyu yooyu lan la. waa xam nga nag euh, moomoo. Mm-hmm. at mu ne ak li ciy xew. Mm-hmm. jamono tey dox. Mm-hmm. ñun moment bi ñuy def art. boobu boo deful thème kenn du la déglu. dëgg la. boo def bii nag. boo deful challenge kenn du la déglu. àdduna mooy doxe noonu. Mhm. Euh, il ñu comprendre di encourager bu baax nag suñu rakk yi nga xam ni ñoom ñoo ñu relever. Mhm. ñi ngi def lu nice mais ñi ngi def aussi li ñu tolloo parce que nag at mu ne ak li ciy xew. Mhm. par exemple ki dàqoon football la la deux mille. Mhm. ren boo ko ñëwee boo ko indee cuune lay doon. parce que lu nekk day am euh, football passé mhm. fi fi mu nekkoon deux mille. comme aar la demee quoi. dëgg la noonu la demee ayca macha allah maam Saliou. dëgg la nga wax sànq sa biir wax lu am am solo. des fois sax du ci yow kese dañuy gis ku ci mel ni daam seen ñeneen ak ñeneen. gars yi bu ñu gisee nii booy commencé nañu jug ñu ngi yëngal. ba sax mën nañoo wax ni commencé fay mag yi gars yi dañuy daw dem États-Unis la pourquoi choix boobu noonu mën nañoo dem mën ngeen dem foofu noonu toog lu yàgg ñëwaat génnee dara mais tôt ou tard da ngeen di demaat toogoon toogaat foofu noonu lan moo tax loolu te da ngeen di am ay soppe yoo xam ne dañ leen di bëgg di leen bëgg di déglu mais duñ xam na la ñuy def ba déglu leen parce que duñ leen comme genre mm. wax nga ko nee yaa ngi woon États-Unis lalu mm. lan moo nekk foofu benn temps bu bari bi Sénégal te da ngeen a am ay sopp yoo xam ne dañ leen di bëgg. di bëgg di leen dégg mais toog benn moment bu yàgg bi la moo koy waral. waaw xam nga xam nga ñun ah, man boog. Mm-hmm. daam seen maa ngi koy nuyu au passage sama rakk la sama xarit la. Mm-hmm. mais daam man jàpp naa ni sax li ci boppam lépp génneeku ko. <coughs> kon bu gisee ni ay ku mel ni daam seen nga ne dafa daw daam. li muy mm-hmm. nekk Sénégal bari na. day day day dem di ñëw nekku fa éternellement toogul Amérique rek. Mm-hmm. man même chose bi may dem États-Unis daam demul États-Unis tam teewuloon maa ngi def sama aar. Mm-hmm. daam aussi même chose daam ay soxla yu muy lijjanti États-Unis su retourné defar dañ fay nekkandoo. Mm-hmm. mais ku ne daa am système bu muy liggéeyee. aussi aar da nga ciy toll foo xam ne. jot bi nga doon am. bi ngay doog a commencé. doo ko am boo demee ba ci biir. noonu dong la demee muy man muy daam seen muy keneen ñun amuñu leneen lu ëpp aar. su ngeen ñu gisee su ngeen ñu gisee bis bu ne ci lañ ne parce que moom ci la ñuy dund. Hmm. ci ngeen di dund euh, ñu ñëw ci li nga xamante ne moom mooy euh, comme ni mu ko waxee sànq aru démb euh, nga xamante ne peut-être danañ a baax a baax ci li nga xamante ne moom mooy wàllu aar hmm. waaye ren nan nga nan nga gisee li nga xamante ne moom mooy moom mooy musique léegi Sénégal aaru Sénégal comme ku ci mel ni yéen ay ñoom Papa Thione nga xamante ñoo fi nekkoon hmm. gars yi dañ leen doon déglu bu baax mais léegi dafa mel ni aar bi léegi li ci ëpp moom mooy xasante ak wax lu ñaaw moo fi am moo fi waaw xam nga aaru léegi nag sorewul ak làmb ji. sorewul ak mm. waaw parce que ñun bu njëkk. Mm-hmm. bi ñuy def aar da gis ni. Mm-hmm. benn télé moo fi am wala ñaar. Mm-hmm. dëgg yàlla def ñuy ñafe sunu live ba nit ñi xam. bokk ak léegi bi nga xam ne émission bi ñuy enregistré fii nii rek. moomu. léegi bu ñu neexoon balaa moom a trente minutes àdduna bépp gis ko. dëgg la xam nga. bon léegi nag gars yi ni ñu euh, damay gis ni xale yi. dañ ko def comme écrit mhm. maanaam da gis ki nekk parcelle. Mhm. waa parcelle moom la ñuy faw seen yoon ci li muy wax ak li muy def. Ah mhm. moom lañ dëkkal. ki nekk caaro yi même chose Pikine noonu. affaire de gox taman waaw affaire de gox lañ ko def taman gisuma ni loolu mooy doxal aar. yow mi artiste bi nit ñi bëgg la. waroo nekk artiste su parcelle kese. comme waroo nekk artiste Pikine comme waroo nekk artiste bu Dakar. da nga war a def fexe ba def ba international sa bopp. nationalal sa bopp dëkk bi yëpp foo dem ñu xam ni kii diw la. Mhm. mais léegi di nga gis artiste boo xam ne sax day toj fi mu dëkk te bu génnee fi mu dëkk kenn xamu ko. bilaay c'est grave ça. waaw dëgg la. Mhm. loolu loolu loolu loolu doy xamante moom mooy Wally Seck yoon bi nga xamante ne moom la nekk euh, peut-être léeg-léeg mu dégg picc bari moom day bàyyi mu jàll boo ko si ñu tontu léeg-léeg nga gis benn artiste boo xamante ne day dégg picc di génn di tontu. yàlla na euh, Wally Seck. waaw waaw <laughs> xam nga nag man mënuma répondre place Wally Seck xawma dama comprendre exact lan nga bëgg a wax. ça veut dire yow mi nga xamante ne man nga. Euh, nekkoon ci aaru démb. yoon bi mu jël yoon bi mu jël comme Wally Seck peut-être yaa ngi koy bàyyi xel sa doom la. waaw sama euh, xarit sa xarit la aussi xam nga euh, nan nga gisee moom carrière ba xam nan nga ko gisee. yoon bu baax yi. waaw xam nga xam nga aar. dafa mhm. doy waar. Mhm. waxtaan ak Youssou mhm. ko mais grand yow moo tax lu la wax rek doo tontu. Mm-hmm. mu ne kuy def lu la wax nga tontu ko biis dina ñëw ñu wax la loo dul tontu. Mm-hmm. man it ma gis ni ñàkk tontu dafa am ñaari sens yu ci ne. Mm-hmm. tey boo ma jiiñee dara ma tontu. am na kuy gëm li may wax am na ku ko dul gëm. bu ma tontuwul nag. ba tey euh, maanaam lay pakk la benn wax pakk la maanaam yow boo waxee rek. Mhm. am na ñoo xam ne mais te bis bu ne bu fekkee lépp lu la wax nga tontu ko dinañ la mës a wax loo xam ne doo ko tontu. dëgg la mhm. léegi nag kon nag may nit ñi tàng ba la wax nga tontu ko amul sens day tax rek ku miin sa xuloo yab la. Mhm. te vraiment ku jiituwul kenn du la joxoon waali munul bañ munul bañ liñ koy wax parce que moom moo jiitu. ñin xamul kenn waxul ci ñoom. est-ce que yaa ngi dégg. ñi ñu xamul mais man daal bëgg na artistes yi. rawatina jeune talent yi nga xam ne ñi ngi ci seeni yoon mhm. di def aar comme Wally Seck mhm. xam ne ñoom ay waykat lañu mhm. te yàlla bu la diggee tonu ceeb dimanche samedi bu la xiif di rey sax du la ci jox liibar yow yaay am ngoru xaar dimanche bu ñëw bul yàq sa der bul yàbbul sa bopp teel sa dignité xam ne nit lu dul diiñ jiiñu ko gën dëgg la. Mhm. macha allah mhm. mais père euh, euh, ci biir loolu noonu fa laa lay fekk see. Mhm. parce que tey jii nii ku ci mel ni euh, benn caat sekk gis nañ ko fi. li nga xam ne tey jii nii mooy def it sur les réseaux sociaux. mi ngi def bruit gu bari caat nee na musique ba mu daj moo ci dàq mu xëy ñu gis ko mu ànd ak ki nga xam ne mooy Wally Ballago Seck fu ne lay génne def interview. tagg ko ba ci invité ko sax soirée am Wally ñëw may ko oto. mu xëy ëlbatikuwaat di ko xas oto bi ma may baaxul lan tax su ma lay woo doo ma loolu noonu en tant que euh, euh, euh, mag ak rak est-ce loolu ñu bëri di daal ci kaw Thiat Seck est-ce loolu yoon la. non ñu dal Thiat sekk mais man nag Wally yéene naa ko quoi. waa waaw li ko waa li ko Thiat def. yéene nga ko waaw. lu tax loolu. waaw dama yàq du jégg gan. Wally bëgg lu baax ak bëgg lu rafet. Mhm. ak bëgg a jàppale Thiat sekk moo tax mu may ko oto. Mhm. mais am na ñu ko gën a jege fopp gën koo yaayoo oto te mayu leen ko. mu bàyyi ko may ko caat. kon su ko mayee caat caat warul def lu dul gërëm ko ak sant ko. waaw mm-hmm. mm-hmm. ah, que man dama xam jàpp ni ku la koo mere ku ne la ko dumaal di sa xarit. Mm-hmm. boo dee artiste nekk waykat bëgg oto sa moroomu artiste ni yow. di waykat jël ko tere lelee ko. man de su doon man même bu oto bi tàkkul sax kenn du ko yëg. dëgg la. parce que teraanga la ma jàpp ni teraanga. ku ko xeeb rek c'est parce que naroo koo fay. Mm-hmm. loolu laa jàpp. dëgg la bon xëy na nag caat xelam moo toll foofu moom it nag xale bu baax la xale bu mën a way la te aussi tamit il faut nit ñi comprendre ni doomu aadama day juum. Mm-hmm. mën na nekk juumte. Mm-hmm. mais man daal gisuma ni waa lii waroon nag de man bu gisuma woon lu dul mu gërëm ko sant ko. loolu mais est-ce que du doon erreur de communication parce que heure bu defee sotti gars yu bëri ne dafa juum ba ci sax euh, ci wàllu carrière am ki nga xam ne moo di Thiat Seck danaan dama doon nelaw imagine toi koo xam ne ba mu dalee aar ba tey ne dama doon nelaw waaye léegi yeewu na bokk naa maa ngi doog a naa wut ñoo xam ne dinañ ma waxal su ma waree wax su ma waree wax ñoom laay wax ñu génn di wax di xaste fii pare mu woon ci mystique yooyu noonu yëpp en tant que Thiat est-ce que war na ko waaw non non xam nga waa mais nag euh, nit ñi yamuñu ñi yamuñu mais man daal sorti yooyu mu doon def yëpp. Mhm. pour man. Mhm. njuumte la rek. dëgg la njuumte la nag mais nag juum juumaat aussi tamit nit ñi duñ la duñ la ko pardonné. Mhm. Euh, ma gis ni daal sorti bu man bu mu mës def wax dëgg yàlla parce que caat man sama rakk la sama xarit la. ni waale nekk sama rakk nekk sama xarit. mais daal sorteem bii man rafetlu ma ko quoi. rafetlu waaw ba tam aussi nag damaa jàpp ne njuumte la rek. njuumte waaw. incha allah ayca mi ngi noonu euh, di leen fàttali ko ni Secka lañ fi dalaloon Secka la mën naa comme ni ko sénégalais yëpp xamee waaye comme ni ko àdduna bi yëpp xamee tey moom la ñu moom waxtaan fii ci suñu plateau bi mu def clip boo xamante ne mën ngeen ko flow ci YouTube bi mhm. wax dëgg fa yàlla clip la allah image rafet na fi nga ko tourné lii rafet na am nay parole am nay thème comme ñoom ni nga ko defee bu njëkk ba mhm. waaye léegi jamono comme li mu wax euh, presque musique challenge la da def mhm. fenn aaru Sénégal parce que aaru Sénégal pour dire vrai moom wax dëgg fa fa mu taxawoon dafa mel ni ba léegi fa la taxaw waaw xam tax mhm. léegi sans bi fan sa amee rek la làmb yàqu ci la musique yàqu mhm. fan mhm. mais bi melomaan yi nekkee Sénégal la dox xam nga fan sa ak melomaan duñ benn duñ benn waaw melomaan musique lay déglu yàlla na nga ko def yàlla na ko kii def yàlla naa ko def. ku mm-hmm. def lu neex rek da koy déglu. Mm-hmm. mooy li ma lay wax nag léegi nag fans moo am. Mm-hmm. sa fans laa loo def rek baax na. waaw wax ci lu la neex def ci lu la neex. mais tey maa ngi gis comme par exemple concert Bercy bu. Sidiki Sidiki Diabaté. ma gis muy jur ay histoire ci suñ biir ñun. diggante Waly ak Sidi. diggante Waly ak Sidi Wally doomu sénégalais la Sénégal la. Hmm. ak baay bi yëpp ay sénégalais la. dëgg la Sidi sénégalais la ndeyam ak baay bi yëpp sénégalais la. Hmm. ay sénégalais li ñoom di leen boole. Hmm. man pour man Sidi ak Wally biñ demee concert u Sidiki. jàng lañ fa war a def. Sidiki musicien international la. international du du ku siiw sa dëkk de. international da am ay trophée Sidi dafa am ay. Euh, Sidiki euh, yàlla ko yàlla def Sidi ak Wally yëpp yàlla na ko yàlla may. Mm-hmm. Sidiki dafa yor ay disque am ay platine. Mm-hmm. musique ko yóbbu ba mu toll foofu gis nga ni mu def merci bi. man pour man loolu Sidi Diop daf ko war a def suba Waly daf ko war a def yàlla na ko yàlla def. dëgg la pour man ñi ñu àndal. Mhm. ak ñiy liggéeyee nag ñoom dañ leen a war a toog toogal ko ne ni la yow kat royal ci kii wala defal lii defal lii. Mhm. dëgg la mais pas nga leen di boole. Mhm. amul jariñ te ñi leen di boole camp bu ci nekk kenn ku ci nekk waykat bi ngay fëqaleeg sa morom amaloo ko njariñ. mën na dem sans yow. dafa jot ñoom musiciens yi ñoom woykat yi xam ñoom ñooy kat pour mm-hmm. man. Mm-hmm. ñoom ñooy kan muy Sidi mm-hmm. di que jàppoo tamit ñi ñi ngeen ñi nga xamante ne dañuy nekk ci ginnaaw artistes yi. Euh, léegi léegi dañuy faral di dugal seen i parce que dafa mel ni boo xoolee coow yu ci bari. en général ci ginnaaw assuré te léegi dafa mel ni artiste tamit euh, amatuñu maanaam. staff boo xamante ne dañ leen di wax dëgg. dëgg dafa mel ni ñi leen di jaay ñu ëpp seen ginnaaw ñu leen di wax dëgg. waaw xam nga li ma lay wax sànq. léegi staff amul. xam lu am. ñi lay Mm-hmm. ñu lay fréquenté. xamuñu dara ci musique. dëgg dama lay xam wala ma xam la ngay sama xarit. Mm-hmm. may def musique yow laay def ménagère def kii. billaahi li may def xamoo ci dara. dëgg la man it xaw ma ci yàllaa man na too ma mën a way sama baat ne xaw ma fu jëm dañuy tëlëx tëlëx rek di dem. Mm-hmm. mais ñi ngeen gis ñu yor fi ay disque door ak ay platine yëpp. dañuy am staff bu baax xam musique xam lépp. di leen encadrer di leen yóbbu fu baax mais léegi nag comme yaa ma neex comme ni ma la ko wax écrire la rek. ki la neex ngay def sa président orchestre ki la neex ngay def dafa dafa doy waar loolu. dëgg la. Mhm. doy waar. Mhm. li mooy ñi nekk ci man kenn du ma wax dëgg. Mhm. ah. yow li nga li nga bëgg lépp maa ko yor. Ah. doo ma wax dëgg lu la koy xañ. dëgg la lu ma wax nga ni gongo rek. dëgg la or que baaxul ci man.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 dëgg la ayca am na solo loolu di Secka euh, mi mm-hmm. ngi noonu Sadio. ayca mi ngi noonu waxtaan bi defe naa ne am na solo bu baax baax <laughs> yéen ñi nga xam ne yéenay safoo di ñu seetaan saa su ne. Mm-hmm. Euh, lii mooy nekk sama talent di ko jaajëful bu baax a baax waaye. Mm-hmm. tey gars yi la plupart léegi ci test yi comme tey gis nañ clip bi nga xam ni génne nga ko. Euh, test bu rouge bi test bu bi nga xam ne am na ci. tey dañuy déglu ay yenn test yoo xam ne maanaam mooy. dañuy xool nu mu mënee defee TikTok muy challenge kese lay doon. duñu xool peut-être ba xam lii mën na dem sa au niveau international. léegi gars yi lépp luy def challenge kese la ñuy jéem bind. est-ce que loolu d'accord nga ci. Saliou wax naa la ko sànq. wax naa la sànq ne la musique léegi challenge la. ok gis nga phénomène yomb na. Mhm. def dara mu def bruit yomb na. Mhm. parce que Sénégal. léegi kii wax lu bon sax saaliw lan gën a déglu këm billaahi wax lu baax dëgg la tey su ma fi toogoon ba suba naan yàlla nee na yonent bi nee na mhm. kenn du ma déglu déedéet mhm. mais bu ma fi toogoon tey léegi léegi wax mhm. benn kilifa diine lu ñaaw ah. léegi ñëpp ñëpp dagg ko estati ko ci ban réew la ne dëgg la léegi boo bëggee ñu xam la wala boo bëggee li ngay def siiw wayal loo xam ne gaar waale la dëgg la nit ñi mën ko damaa mën a solu mhm. li ma sol day rafet. Mhm. man du ma sol lu dul sama taay. ay sama noon yi fii laa mhm. sama noon bu ma mer tey nga mer. léegi képp ku bëgg a loolu lay nag waykat yi dem nañ ma xam ko. léegi yow bul xuloo bul xeex man dinaa xulool ñëpp. dinaa wax loo xam ne dinaa wax sama noon bu bëgg a mer rek xaar ma tey bu ma génnee. yow nga dem sol salu rafet statut loolu. teg ci morceau bi. léegi man Secka lay xulool. léegi nag yóbbu na ci xale yi ba dootuñu def tem dëgg musique nag man dama bëgg lu thématique quoi. man si ah. effectivement mais da ngay am benn doom. Mm-hmm. mu ñëw ba mu génnee ba mu fëlee sax mën nañu wax yàggul. Mm-hmm. mais mu lëmb réseaux sociaux yi. Mm-hmm. des fois yi di bari ci moom. defe naa ni eh, eh, yaa ngi suivre. en état mi moom lay def yeneen ak yeneen ak yeneen. tey eh, critiques yi des fois nu muy baree. lan la des fois waxtaan ak moom ci dara ne ko kat lii ak lii motul lii ak lii. wala da naan ko ay ca loo def loolu. non non moom bari na loo xam ne sax dina ko def ba pare ma doog ko dégg. Mm-hmm. Cheikh Secka Cheikh Secka. Mm-hmm. mooy li wax sànq. moom ak xale yi ñëpp a yam. dëgg que jàpp na ni. Mm-hmm. moom sow bise lay def. dëgg la jàpp na ni loolu moo ko war a may tuur te image dafa garaaw. ndax ëllëg. dëgg la dama leen koy wax tout le temps. il faut ngeen xool li ngeen di def ndax ëllëg. variant ngi fi. bul topp fuggu aussi fuggu xale. Euh, xale euh, jeune talent. Mhm. mook gileem gu toll ci tukkal te amul naar bu ko tàggat ñooy am. Mhm. Mhm. est que ay dégg. bon Cheikh nag day def yëpp xale. mais dina ko bàyyi. mais chaque jour dama naan kon loo mën a def ci xale. Euh, arab day wax sabiyan sabiyan wala kaana nabiyan même bul fekkee di nga nekk yonent it di nga def yëfu xale. Mhm. mais nag bul fàtte ni damaa bokk ci famille du bul fàtte ni sa waajur kat nit ñi dañ ko xam. Mhm. bul fàtt il faut ngay fàttaliku ni man kat damaa bëgg doon dara ëllëg. Mhm. est-ce que est yaa ngi koy encadre di ko wan ni ko musique fii lay nekk fii lañ koy jëlee fii lañ koy yóbbu. xam nga parce que wax dëgg fi yàlla dafa mel ni xale yi dañ leen war a jege mais ba léegi xale yi jege wuñ leen pour l'instant man maa ko bàyyi mu def yëfu xale dëgg la dina ci jóg mhm. damay am yoo xam ne jot la rek dëgg koy bàyyi mhm. après boo bëggee dem boo demee nag bu bëgg def dara mhm. carrière <laughs> bëgg a parce que li ma la doon wax sànq euh, euh, mën nga def phénomène ah, mais carrière talent moo koy def pour euh, Youssou Ndour talent ma ko téye ba léegi. dëgg la ñi mu doon waaye dool ñëpp. bàyyi na soo barki dem bi mu demee tamit Bercy bi ñu koy invité foofu saa yi toj ko. ndeysaan ban ci. Euh, moo ko woon fii euh, fan yëpp yaakaar naa gis naa ko ci uh-huh. comme comme moom tamit def ko. Ah, mm-hmm. doo ànd ak bruit. Mm-hmm. non non. mais est-ce que xam nga Youssou Ndour. Mm-hmm. bari na lu muy toog néew na lu muy toog Sénégal. ndax ay ah, festival ak te kenn du ko yëg ñu ngi ci liggéey bu mag hmm? si parce que li booy yi dafa ni moom mooy mooy li ma lay wax hmm. kooku talent moo ko téye dëgg la ko am plus de soixante et quelque ans hmm. ba léegi moo talent moo ko téye ah, ay Mori Kanté Salif Keita ñoo ñëpp talent leen téye bokkul ak la phénomène phénomène à tout moment mën nga génn dara mu def test. carrière éphémère ngay def rek. waaw mais nag euh, carrière moom boo ko bëggee def. non da ngay am talent. da am talent waaw. Mhm. kii am na suñu benn yaay. Mm. Mm, ñu gën ko xam ci Coumba Gawlo la. Mhm. demoon moom tamit yëngal fi jékki saa yi amoon. Euh, euh, ay jafe-jafe jafe mhm. yàlla jàppalewaat ko ba mu ñëwaat. ak beneen facette musique. di def aussi yu ama ama am solo. ba nga ñëw ba nga gisaatee ñëwoom. ci biir aar nan la la def. waaw man nag damaa bokk ci nit ñi nga xam ne. Mhm. yàlla moo ni lépp luy tooy rek dina mës a woo. man li ma jàpp. Mhm. doomu aadama la comme ñëpp. dëgg la mhm. boo demee hôpital léegi fekk fa junniy nit ñu tëdd. te kumba gënu leen. dëgg la te duñu ay waykat. dëgg la loolu leen tëral rek a jàpp kumba. bi mu waree jeexit yàlla jeexal na ko. dëgg la mooy nag muy jigéen joo xam ne wax dëgg yàlla. kenn du tudd bu ni woon ku mën a way dee tey ku ma gaaw la du fanaan dëgg la mais nag yàlla miy dogal mooy ñëw ak ay dogalam ci moom mhm. parce que moom moo ni faalu li ma yurid mhm. ay def lu ma neex mhm. moom moo def li ko neex ba mu waree jeex jeexal na ko mu ñëwaat di def sax lu dàq lam njëkkoon di def la macha allah loolu rek la du leneen. ayca mi ngi noonu am na solo ayca balaa ñuy wàcc li nga xamante émission bi balaa ñuy dem moment de di leen fàttali ba léegi nii suñu papa Seck lañ fi daal daloon parce que nag wax dëgg fi yàlla euh, jàmbaale ci mën nañu ko dippee benn phénomène muy jékki mu jékki-jékki woo ko ci mel ni papa Seck ni ko lii laa bëgg a def nanga nanga est-ce ñu ngi leen di woo di di jéem a déggante yéen parce que dafa mel ni ñoom seen moyenne bopp rek demal. waaw man bari na ay jeunes talent yoo xam ne parce que man tamit. Mm-hmm. man saa mais gis nga morceau bi xale bi ma ci àndal. kenn mm-hmm. xamu ko. dëgg la. mais man damay bëgg parce que man li may bëgg mooy bu may def morceau. Mm-hmm. du damay fekk ku nit ñi xam ba pare ma invité la. Mm-hmm. amuluma njariñ mm-hmm. parce que man dañ maa may loxo kon damaa war a maye loxo. dëgg la damay fekk ku xamul. Mm-hmm. ma invité la ci samay morceau. ma sama morceau bos bii di salmini ma. gis nga début bi pël fuuta laa ciy làkk. Euh, deuxième partie bi ma def ko lébu. di ci wane ñaari culture. culture Guinée ak bu Sénégal. gis nga même ci clip bi gis nga ko. xale bi ma ci invité Xaadim Lam. pour man dañ maa mayoon loxo damaa war a maye loxo. dëgg la. Euh, bari na artistes yoo xam ne kenn xamagu leen sax des fois ñu woo ma. Mhm. père lii lii lii ma wax la ci li may sama xalaat. Mhm. defal bul def loolu yow la mais man li ci sama xalaat dina la ko wax. Mhm. parce que talent dafa nekk ah inspiration mi ngi ci nit. te à tout mën na yeewu. tey am na bis bu ne nga bis bu ne àdduna nga xam koo xamul woon. dëgg la bis bu ne tele bi koo xamul woon fu mu ne génn def lu ñu tës. dëgg la est que yaa ngi dégg. Mhm. la preuve mooy kellu guinéen bi xaw ma malien bi ne Fati Fati. Mhm, waaw est-ce que yaa dégg. dëgg la kenn xamu ko woon. mais yàlla aar du biir day xëy rek. wasi dëgg la mais daal bëgg naa ñuy def lu am thème. Mhm. parce que dina la téye ci sa ndax sa carrière. def loo xam ne dootul fay. Mhm. macha na solo Saliou ñu dugg mois de août. waaw ay mhm. ah, euh, di leen fàttali bu baax a baax a baax suñu papa Sika lañu daal daloon fii suñu gaal gàtt moment de divertissement ak moom Saliou. waaw di ko jaajëfal bu baax a baax ba tey yéen ñiy safoo duñu seetaan mën ngeen dem sur YouTube ngeen tapé euh, Sika macha allah. Mhm. ñu gis euh, clip bu bees bu am solo boobu Salminima. defe naa ne mi ngi yëngal àdduna yéen aussi mën ngeen ko dem suivre yu ama am solo yooyu. waaye père lii nag diggante laaj ak tontu la. tey bu ma doon laaj. kan ngay rêvé defal featuring sa àdduna. waaw man nag defal naa ko featuring euh, Sénégal waykat yëpp ah. Mm-hmm. xamuma kan laa fi defaloon featuring. Mm-hmm. amul ku ci bokkul seen. ok du Youssou du Thione. yàlla ko yàlla yërëm Omar Pène kenn ku ci nekk tamit. Mm-hmm. waaw kan ngay déglu di kontaan fii ci au niveau national. Youssou Ndour. Youssou Ndour ah. ok. est-ce que nii euh, euh, diggante. taal ak fay. bu ñu la doon wax nga tànn ci benn boo jox. comprendre ma. comme genre taal lu tàq ak lu fay. waa man nag mën naa cee bañ a taamu benn. Mhm. parce que man ngaa taal loo xam ne di ko bëgg a fay mu tëla. dëgg la comme man ngaa fay loo xam ne fay ko du sa cër. Mhm. waaw dëgg la eh, eh, eh, dem nga États-Unis. waaw ñëw fi Sénégal tey diggante États-Unis ak senegal ba moo ci dàq. États-Unis man nag yàlla bindul réew mu ko dàqal Sénégal. Mhm. looloo waral sax li may nekk Sénégal ëpp li may nekk États-Unis waaw. Mhm. jii nii eh, eh, eh, gis nañ fi mu toll nii jeunesse bi ak mhm. politique bi nga xam ni yëngu na tey bu ñu waxoon nga tànn kenn ci diggante Macky Sall ak Sonko. waaw buñ may tànnaloo. ci diggante Macky Sall ak Sonko. waaw man nag Macky Sall la. Sonko sénégalais la. man Sénégal moo ma ñor. Macky ñoruma Sonko ñoruma xam ko ku ma ñor. Mm-hmm. yàlla na yàlla teg ci réew mi ku ko mën a yor. te jàmm rek di am. waaw mm-hmm. boo amoon benn moo boo xam ne moom la gën a neex sa àdduna ban moo la. mooy sallallahu alayhi wa di ji ñuy wax Muhammad. ndeysaan waaw. dëgg la mm-hmm. eh, eh, eh, ku nekk peut-être am nga koo xam ne borom bi jël na ko mu sori lool ci yow. tey boo doon ñaan borom bi indi indilaatal la ko kan lay doon. sama yaay ji bu ñëwaatoon yan moo nga koy wax pour nga mu demaat. maanaam yan kàddu boo jàkkaarloo waxtaan ak nii moom nii. man nag dama lay wax benn affaire mooy kenn rek laa ñëwee ci àdduna. Mm-hmm. instant bi mooy ko ay way juram di jur dafa foor ci doomu aadama. dafa foor ci nit. mais nag mënoo koo xam mukk li fekk yaa ngi nekk ak moom. bu la wanee ginnaaw rek dafa am bët bu yaay di xool doom. moom rekk ko koy xool jabar du la ko xool jëkkër du la ko xool doom du la ko xool rakk du la ko xool mag du la ko xool mm-hmm. yi képp ku desee booy jur yàlla na la yàlla may nga dund ak moom lu yàgg mm-hmm. mais xam naa ni daal doom yi ñi ngi rawantee ci ay wayjur yàlla nu yàlla booleeg wayjur yu baax mais demam nan nga ko yëgee nan lañ la ko annoncé waaw man sama yaay bi muy gaañu premier tournée bi ma njëkk am tukki ko Gambie la mm-hmm. damaa dem Gambie ñëw fekk mu feebar nekk hôpital mhm. maa ngi fàttaliku defe li ma jële gàmb yëpp ay deux cent axuma deux cent quelques mille la deux cent mhm. à l'époque mhm. fekk mu ne ma woon naa ko jëndaaleel gàmbi ay dàll ak affaire yu ma jënd yooyu yëpp ñëw fekk mu feebar oh. bi ma ñëwee fekk mu am ordonnance bu war toll ci cent quatre vingt cent soixante dix. te boobu yaa ngi deux cent mille nga yoroon. te boobu yor naa deux cent mhm. ma ñëw mu ne yaa ngi nii. Mhm. Mhm. sa mag yi mën nañ ko jënd mais yow laa bëgg nga jënd. ma am ci bànneex nag bànneex bi ma ci am mooy. lu tax yàlla may ma lu toll nii. ordonnance bi hésité wu ma sax. ma dem jënd ko mu sax utiliser ordonnance yi. ma ñëw ñaari baat li ma. yow rek laa am ci doom bu góor. Mhm. ñi nga am ci ay rap yëpp rakk yëpp jigéen lañu ñi nga am ci ay mag yëpp jigéen lañu. Mhm. ma lay dénk loo xam ne boo ko defee kenn du la ci yërëm. Mhm. mooy lépp loo am amal xolu bokkook ñoom te lépp lu ñu am amal xolu bakkook ñoom. loolu laay dunde ba léegi. di ko ñaan yàlla na ko yàlla yóbbu ci àjjana yi gën a kawe yàlla mën na ko yàlla na ko def mais waajur bu ma jàngal àdduna la mm. buñ ma ne woon kenn kese na di na dikkaat moom rek laa bëggoon waajur bu jigéen mais am na benn message peut-être boo war a mën a lancer jeunesse léegi parce que tey jii nii mm. koo ci gis euh, euh, euh, yaayam jege na ko mm. mais yaay ji bu mu sànni ko loxo waaye mère dimbali ma dem yooram ba sax duñ sax lijjanti seen seen seen waajur bu jigéen tey ñooñu yan message nga leen war a mën a waaw dañoo xamul rek ndey doj la doom nen la mhm. doj bu dalee ci kaw nen nenay toj nen bu dalee ci kaw doj doj mooy toj bu euh, xale yi nag mën nañoo bañ a xam doj doj mooy xeer xeer jur soo amee defal ko mhm. soo amul jàmmal ko mhm. am na doom yoo xam ne seeni woy jur dañ leen di tiitaroo am doom yuy tiitaroo waajur waaye doom bi ci gën mhm. mooy doom bi waajuram di tiitaroo mais pas doom ji tiital waajuram mhm. yàlla du ci yàlla musal yàlla bu leen ci yàlla boole yàlla boole ci doom yi nga xam ne mhm. seeni waajur dañ leen di tiitaroo maa ngi lay wax rek doom xale yi ñi ngi rawantee ci way waajur ak nu mu mën a mel yàlla na nekk ca baar ba yow fonkal rek loolu nga loolu moo la nekk sa diggante ak sa way jur dëgg la fonk ak jox cër am lu mën a mel nag ndeysaan waaw macha allah loolu am na solo trop euh, euh, euh, fi may wàccee rek hmm. nan nga gisee tey li nga xam ni moom la ñu waxtaanee fii ci waaw am mbégte nag ak mbetteel nag ah, wax dëgg yàlla hmm. parce que wax dëgg yàlla waxtaan wu am solo hmm. lañ fi waxtaan xam waxtaan nag mën naa gudd te du am njariñ dëgg mais boole lañ fi tënk yoo xam ne képp ku ko jëfee gis ci njariñ vraiment am naa ci euh, pour man leneen la ñuy wax ah. wax dëgg yàlla. Mhm. mais waxtaan nañ fi lu am solo. Mhm. mais nag mbir bu ne day nu turu nuru borom. Mm-hmm. lu tax ngeen tudde ko sunu gaal. Mm-hmm. comme gaal gi ñëpp ko bokk noonu rek la mën a demee. dëgg la <laughs> waaw mm-hmm. ndeysaan. <laughs> <laughs> noonu Mame Saliou waaye tamit di jaajëfal suñu nga xamante wax dëgg fa kenn dootu ko présenté Sénégalais yi waaye kenn dootu ko présenté àdduna. ndax nag euh, jàmbaar la bay waaram loolu ci aar xanaa di wax que ni ñi nga xamante ne ñooy jóg ñu dem toppi mag ñi ndax wax dëgg fa ay thème lañ doon woy boo ci xoolee ba ci clip bi nga xamante nga xamante moom mooy mm-hmm. lébu kon mu mm-hmm. doon ay thèmes yoo xamante ni wax dëgg fa yàlla yu différent man ngeen ko flow mu ngi ci biir youtube bi ah wax dëgg fa yàlla euh, Cheikh Secka ju koy jaajëfal bu baax lan ngay tàggatoo internet Sunugal 24 waaw xanaa di am mbégte ak bànneex mm-hmm. di ñaan yàlla def fi jàmm yàlla may leen xéewal ak sutura def leen tamit ay mag mais mag yu am l'islam yàlla mën na ko yàlla na ko def di am mbégte nag ci internet yu Sunugal 24 yëpp di leen wax ni daal affaire bi fii la. Mhm. ci sama talent. jaajëf kontaan naa. ayca noonu kontaan nañu Mame Faye maa ngi waaw di ko jaajafal bu baax a baax. ñu am mbégte ak contentement bu mag a mag jàkkaarloog moom fii suñu biir plateau bu baax a baax ñu gën ko xam ci euh, Perseka. ba tey mën ngeen dugg sur YouTube dem flow yu ama am solo yi nga xam ne tey moom la fa def waaye yéen ñi safoo saa su ne di tiitaroo di ñu seetaan ñi nga am contentement ak mbégte bu mag a mag di leen jaajafal bu baax a baax. di jaajëfal sama kilifa gu mag Cheikh Issa dañ ko tuddee làmb ju mag a mag. ci fii le samedi le 2. incha

histoire téléphone di ko mhm. dalee nag wax dëgg fi yàlla 5C ba 15 pro maxi lépp loo bëgg ci téléphone Ahmed am na ko foofee ci golfu sud la laa di nekkee ko ñu bàllgee foo laajte seen réseau booy kaw rek Ahmed ñu daal xewoon waaye tamit di jaajëf ki nga xamante nag moom mooy borom jaare di ko jaajëf lu baax di jox nag dig daje beneen incha ak yeneen invité jërë ngeen jëf merci beaucoup jaajëf